huwa ilaahu wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahiimu wa lahu al azmaanu bayitu sañ Tuubaa boobu nekk ci wakkaana xàqan fi ne nii boo ko calculé moo jàpp 903 bari na ci mag ñi buñ ko daan nëbb sax 9h03 la ñuy wax bari na nag turu yàlla yu mu jàpp waaye 903 boobu bu fekkee nit nit dafa tawat dëgg mm-hmm. nga bëgg mu wér bindal tasun akamun aliyun nasu qaharu wax ko benn par benn tasun binde tasun tasun hakamun aliyun aliyun nasu qaxaaru nasu qaxaaru boo ko calculé 903 la da nga koy bind 45 yoon bind fatiha 45 yoon bind laa ilaha illallah 45 yoon bind wa in minkum ilaa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiyan 45 bu ko defee nga def ko saafara jox ko ki feebar mu naan ci sangu nga jël 903 bind turu ki feebar adat ko boole koog 903 bi mu jox la ab lim nga liggéey ko ci ak tasuna akamun aliyun nasu qaxaaru bu fekkee ni ku feebar la na saraxe ginaar gu xonk ak gerte incha allahu rabbi sunu borom dana ko yëkkati ci feebar boobu. barakallah moom tax